ginnaaw bañ leen nuyoo ziar leen ñi ñu suivre ci 4appuis comme ni ñu koy defee chaque jour rek heure bu xeexoo amee jóge ci ñi seex làmb dañuy ci waxtaan ak ñi nga xamante ne seen xam-xam dafa màcc ci wàllu sport de combat loolu moo waral ñu seet fii Mbaye Diouf fas yéene ca waxtaan ak moom indi sa xalaatam ci combat yi nga xamante ne mbëri Sénégal doon nañu doomu Sénégal moo ko organisé mu moo géet mu indi sa xalaatam Mbaye maa ngi lay ziar waa di nuyu sama papa di nuyu sama yaay maa ngi nuyu ñëpp daal bàyyiwuma kenn ci kattanu yàlla. Mhm. macha allah mbay bala ñu tàmbali waxtaan bi ku ne xam na ne jamono bi ñu toll nii li nga xam ne mooy wàllu ñaan dafa soxal nit ñu bari ci àdduna bi instant bi nii ci lool la ñu dem seetee Cheikh Mouhamed Ibrahima soog a commencé waxtaan bi. yéen bokki Sénégal yéen bokki àdduna Cheikh Mouhamed Ibrahim di borom xam-xam bu mag bu kenn dul naa taple ci wàllu ñaan seet maanaam asraar ak wàllu fajum cosaan képp koo xam ne da nga bëgg a tàggalikook cigarette wala sàngara ku rab jàpp wala ku mënta am doom wala ku néew kàttan ci wàllu sëy wàllu gàllaaj ngir aar sa yaram mbirum samp nit wala gàllaaju kër wala mu jox la daraja ju mat sëkk ak bayre seetil Cheikh Mouhamed Ibrahim loolu mbokk yi moo ci doy fii ci biir réew mi mu ngi nekk ci Nord Foire téléphone am 77 187 61 30. léegi Mbaye combat bi nga xamante ni mu ko organisé woon na ko États-Unis mu doxoon ci diggante mbër yu bari. combat yi noo ko jàngatee ak boobu d' abord forme yi forme yi nga xamante ne mbëri indi nañ ko nan nga ko gisee. waaw di nuyu moo gét xam naa xamante wu ma xaw ma ko moom ka vraiment du ma fen xaw ma ko xamuma yaa ngi dégg mais dafa def loo xamante ni lu rafet la loo xamante nii maanaam sénégalais yëpp dañ ciy gis seen bopp moo xam da nga faa nekk moo xam nga nekk Sénégal fii comprendre nga mais ñëpp a ci gis seen bopp parce que dajale doomu Sénégal yëpp boole leen tournoi MMA loolu dafa nekk loo xamante ni lu rafet la daal man maa ngi koy rafetlu di ko wax ne fi mu teg loxoom daal foofu la moom moo gét vraiment maa ngi koy ñaanal bu baax a baax yàlla may ko gudd fan ak wér ci kattanu yàlla ak mbaaxam. léegi li ma li ma la laaj léegi bi mbëri simmee ko ñoom est gis nga ne en fonk respecté nañu euh, journée bi respecté nañu seen ko yi. waaw xoolee seen forme yi waaw xam nga ku ci nekk danga nga am adversaire ku ci nekk adversaire bi nga am. da nga war a pare. mais ci biir préparation bi est-ce que am na ñooñ pare nañu bu baax. parce que am na ñu boo gisee ku mel ni Malick Niang nga xam ne combattant la dafa pare Malick Niang boo ko xoolee nga ne dafa nga xam ne dafa pare keneen ku mu doonoon démb bu dul Abdou Diouf di ngeen jëflante bu méttee métti parce que Malick boo xoolee dafa ku am jom ci sport moom sport dafa bëgg sport moom daf ko bëgg parce que man xam naa ne loolu sax moo tax boo yeen combat ñu ko doon proposé fii yëpp jëlu ko boo xoolee ci Ama Baldé la gëj a mais dafa tenir formaam am téye ko xam ne au mun na am leneen mu ñëw. far moo gën teg MMA tamit mu ñëw wane ci boppam. wane ci boppam bu baax. te gëm naa ne tamit gëm naa ne Malick Niang ku ci mën a sori ci MMA la parce que istilam bi mu yor istilu MMA la. Mhm. façon bi muy waaw parce que boo xoolee dafa dagg tracé. Mhm. nekkul poids lourd. Mhm. nekkul gori mais nag dafa am yàq dafa am relance tamit. te dafa mën a xeex dafa agressif moom Malick Niang. kon kon boo sukkandikoo ci sukkandikoo ci combat bi mu def démb ak Abdou Diouf yow gis nga ne war na mën a sori ci am non war na mën a bëreeg ñen war na mën a def ak ñeneen MMA sax mhm. ñi nga xam ne dañuy utiliser MMA déggantaan mhm. war na mën a jëflanteeg ñoom ci ni ma ko gisee parce que gis naa ne dafa pare mais mais natt ko ci benn combat bi mu def démb rek est-ce que non non non du foofu non non mhm. man xooluma combat bi déedéet parce que man dama lay xool avant ale combat dama gis ay ay ay kii photo am yuñ jugal ma xool forme am forme bi baax lool te ma xamoon Malick Niang nag Malick Niang yàggu fay joge ma seetaan ay kombaam xool euh, formaam xam corpulence am nu mu mel moo tax bu liggéeyee tuuti rek dina am ci MMA loo xamante ni sax mun na koo ñàkk am fii waaw. dinañ mhm. dina ñëwaat ci combat Malick Malick ci Malick Niang ci boppam léegi combat yi jiitu avant combat Malick Niang Abdou Diouf bi ku ci mel ne Pape Sène ak Infrarouge boobu Pape dafa dafa kaawoo noo gisee combat boobu. bu demee ba Infrarouge di ko kaawoo nga xam ne Pape entraînement bi moo des physique bi moo des mais Pape boo amee coffre ak ni ma ko xamee ni mu agressif soo amee coffre dëgg du taxaw au franc rouge mais manque condition physique lay doon rek. beneen euh, ndigal ak Boucher. non ndigal ak Boucher moom yaa ma gën a xam daal xam nga rek am na loolu kenn du wax lépp quoi mais combat boobu moom ak yeneen combat yi nga ma laaj moom wax dëgg naa si yàlla bokkul. Mhm. non jamais. mobile ak mobile ak keneen euh, mbër bi. Ninki Nanka la tudd je pense. mais Ninki Nanka dafa nekkoon mook mobile kan moo njëkk a dem fii la nekkoon non mais mobile moo ko fi mujj mobile dafa ñëw préparé contact te dañu am ay combat moo tax moo tax mu gën ko gën ko pare moom tamit mobile dafa pare tamit. mais boobu suñu xoolee ci biir stade bi gis nañ ko benn moment muy wàccu. muy wàccu waaw. waaw loolu mun na non loolu mun na nekk. loolu mun na nekk mais euh, bokkul ak condition physique dara. wàccu ak condition physique mun na nekk dafa lekk loo xamante nii xam nga yaa ma gën a xam mais loolu bokkul ak compétition dara. Mhm. mais léeg-léeg wutal ay premier secours bu yéex a génn ak yooyu. ak nekkul ah? gaaw a sonn yooyu. wala manque d'entraînement moo waral loolu. waaw xam nga bu ma la nee am na koofur dëgg dëgg dëggantaan waxuma la dëgg parce que li ñu war li mu war a liggéey moom dese na koo liggéey. Mhm. dontu kon ni gagné na nag mais mu gën a renforcer wu rek moom tamit mobile parce que xam ne ci yëf yi la bokk daal. léegi dañu moo nekkoon Abdou Diouf ak Malick Niang. waaw Abdou Diouf Malick Niang waaw. mooy li ma la wax rek. Malick bu gaaw na trop mooy li ma rek Malick Niang moo gën a pare. Malick Niang moo gën a bëgg dafa mel ni moo gën a bëgg bés bi tamit. waaw parce que moom moom xam naa ne bu dul combat ak euh, Abdou Diouf tamit day continuer MMA. te bu ko continuer fii la ko waxee di ko continuer na ci am ay victoire yu bëree bëree bari am nga am nga si yaakaar naa ci yaakaar ci moom lool parce que mën na xeex. te dafa agressif du la may dara te telewul bëre. Mhm. te tamit am na force de frappe. Mhm. moom Malick Niang. Mhm. Abdou Diouf mi ngi doon combat nag est-ce bi mu simee ko gis nga ne respecté na jour bi. non non non liggéey bi des na lu bëree bëri liggéey bi des na lu bëree bëri parce que Abdou Diouf man xam naa ko bu baax sama waay xam naa ko bu baax su liggéeyee dëggantaan dëggantaan dëggantaan non lii nii duñu ko ko def quoi mais ñàkk liggéey liggéey bu bu bu wow koŋ mooy mooy a lii quoi. mais moom nag jàmbaar la gaynde la xam naa ko bu baax ah, du bàyyi. Mhm. léegi est-ce que est-ce que foog ne Malick Niang mu concentré wu ci MMA bi wala mu ñëw ci euh, boole boole ñaar yëpp maanaam MMA ci. non man su doon man la su ma doon moom la su doon man la. damay damay concentré wu ci MMA bi man su fekkoon ne maay Malick Niang damay concentré wu ci MMA bi quoi. dama ciy concentré wu bu baax. Mhm. léegi mais est-ce dem dem nekk ci bi. mais MMA. MMA lamb la a la mais MMA bi Malick Niang bu ci nekkee tuuti da koy xam parce que Malick Niang bul ne ki ko yoroon boxe professionnel la ki ko yoroon boxe professionnel la moo ko yoroon Igri Ndakaaru lu Malick Niang mën ci xeex moo ko ko jàngal comprendre nga Malick Niang dafa mën a xeex dafa mën a xeex trop. Uh-huh. kon boo da nga naan mu bàyyi arrêté lamb ji dem. dem ci MMA man su fekkoon man la. su fekkoon maa taxawee place am man noonu laay def damay bàyyi lam ji dem MMA. Uh-huh. pourquoi pas gisoo ne mën na cumuler ñaar yëpp bu amee combat MMA dem def ko bu si jógee ñëwaat continuer lambam. parce que combat lamb fii dafa metti combat lamb da ngay ñëw da ngay ne ci combat lamb ñu lay liggéey ak fu ne ñu di la fa dugal ak xam nga. combat bi day dem ba fee mu yàqu ñu ñu ñu jàppaat bés datu combat bi mu yàquwaat xam nga. mais MMA nag amul amul gàllaaj amul dara saxaay day nekk en da ngay nekk en l'aise doo am benn pression kenn du la liggéey pression bi ngay am mooy yàq waa ji rek. entraînement jot nga entraîné ba wow koŋ combat bi jot nga wone sa bopp jeex na amul leneen. mais est-ce que boo ne euh, MMA bi amul amul amul amul liggéey bi ngay wax ni est-ce amul non amul tubaab yi. parce que gis naa nit mu ne tubaab yi sax ñoo gën ñoo dàq. non dañuy wax rek tubaab xam nga lu mu gëm liggéey ba mën li ngay def préparer la ba mu ba mu leer ko ne mën nga li ngay def ñoom ñoon noonu lañ ñu gën a amee sens quoi ñoom gëmuñu yooyu ay liggéeyantu ni ay liggéey nit fii noo gëmuñu loolu. ñoom li ñu gëm mooy yow ñu di ñu travail la ba nga mën li ngay li ñu la doon travailler ba mu mokk lool nga xam ne da ñëw rek tari ñoom loolu lañu gëm tubaab loolu la gëm. Mhm. mais bu bu combat bi jeexee aussi gis nañ dégg mu ne dafa soxla Tapha Tine ñun ñaan ñu def MMA. dafa soxla. Tapha Tine pour ñu ñu non Tapha Tine du na xam ne Tapha Tine du mbëru MMA. Tapha Tine roi des arènes la bëgg jël sama rak boobu maa ngi koy ñaanal bu baax a baax a baax yal na ko yàlla may gudd fan ak wér. ba mu mën a jël roi bi yóbbu ko bawal parce que sama rak la mais ay MMA moom yooyu du ci dugg. Ah, fii lay fii lay toog fii non moom fii lay toog dax daxee gars yi fi nekk yëpp buux leen ca biti jël roi bi yóbbu ko refan te bu ko xesee jël moom sarax leen dongo njaay baa mu tibb ak dooleem lay xel di def waaw kay mais mais Tapha gabarit bi mu am ak euh, ñëpp xam ne mën na xeex tamit est que hmm? gisoon loolu mu demoon ci MMA bi da ko bàyyi ba jël roi bi rek su ma jëlalee roi bi moom bu ko neexee mu dem MMA mais instant bi moom dama bëgg mu jël roi bi te am naa yaakaar ne da koy jël ci kattanu yàlla. Mhm. am ci am naa ci yaakaar lool parce que gars yi fi nekk nii ku ci buuxanteeg moom mu gënal làmb ji. làmb ji buuxante nag amateur parce que arène nationale ñu koy wax nee na ba depuis euh, mu am fa ba léegi amul benn combat boobu moo xamante ni jeex na ci. Ah, tafaade ku ci tafaade ku ci nangoo ku ko nangoo ba rek moom képp ku nangoo ba rek moom taxaw ah dina la duma daan la waaye boo taxawut nag du la duma daan la. mais nag saa yu daw di am moom yaay arrière Tapha moom du arrière kenn instant bi yaay arrière kay. mais moom du arrière. léegi initiative bi euh, kii kii jël moo gën jël est-ce gisoon na lu mu war a continuer ak bu ak fekkee war na ko continuer tamit prochainement yan adversaire la war a boolewaat pour ñu def foofu MMA ci waaw waaw xam nga am na ñeneen ñu fa nekk mais mun na jël ci Sénégalais yi jox leen ci tubaab bi mun na jël ci sénégal yi jox leen ci tubaab bi boobaa day neex rek mu utal Malick ñaa adversaire Malick Niang boo ko doon wutal boo ko doon ki gagné woon ki gagné woon Siteu. waaw ki gagné hmm. ñu ko jox maali ñaa mais Siteu ki gagné woon hmm. Siteu. bu nekkee ci forme Siteu bu nekkee ci form kenn mënu ko su nekkee ci forme normale wallaahi asim kenn mënu ko comprendre nga parce que man xam naa ko parce que benn euh, gàttul te xale la comprendre nga te nag tamit ku am jom la nag borom jom la de lool sax. Hmm, la daal. borom jom la lool moom Siteu. Mm. kon da nga gis ñu jël ak Malick Niang boole ko adversaire u Siteu bi passé. waaw ma Malick Niang mun na bëre ak ki bëre woon ak Siteu pourquoi pas. mais bu ñu xoolee Malick Niang benn combat la def MMA te Siteu def na deux combats trois combats avant muy dajee waa jooju est ce que buñ tëbee te boole Malick kooku du risque du risque ci Malick Niang. non non Malick Niang kooku mun risque ci moom Malick kenn kuy nekk MMA munoo nekk risque ci moom parce que benn agressif na mun na xeex mun na xeex lool comprendre nga telewul bëre. Mhm. te neewul kattan. waaw am na solo bay waxtaan bi du gudd trop la nga tàggoo yebale ko foofu waaw comme ni ma la ko waxee rek di nuyu Sénégal yëpp di nuyu monde entier comme ni ma ko defee woon rek di ñaanal réew mi yal na ci yàlla def jàmm ci kattanu yàlla ak mbaaxam di ñuy sama gars yi nga xam ne ñoo nekk ci itaali ah France Belgique ah États-Unis partout daal le monde daal képp sama sama xarit bépp boo xamante ni yaa ngi soppee mbay Diouf maa ngi lay nuyu bu baax di la ñaanal gudd fan ak wér. ci kattanu yàlla ak mbaaxam. macha allah mbay itamit di bu baax a baax. Mm-hmm. di jaajëfal ñëpp ñu doon seen kat mm-hmm. du nuyu sa mag muy Bada Dione. waaw Bada joon waaw Bada Dione sa du sama mag sama nijaay la. sa nijaay la waaw maa ngi koy nuyu tamit sama nijaay la lool. maa seeti leen ku son ci man la. sama carrière bi ma nekkee xale. daf ma doon teg ci mbagam géej. daf ma doon teg ci épaule am géej di daw ak man bi ma nekkee xale. kon bokk na ci la def mbër. di ko nuyu bu baax moom Bada Dione mu ngi fii marché Tilène reefaan tissu ku bëgg tissu bu baax insha allah boo demee place am waaw foofu nuyu tamit ñoom Sada mhm. du ma leen fàtte mukk tamit ñoo nekk Touba Sandaga ñoom Sad maa ngi koy nuyu bu baax a baax ak Matar Touba Sandaga lañ nekk maa ngi leen di nuyu bu baax a baax ñoom tamit jaaykat tissu lañ jaaykat tissu lañ am na solo di nuyu tamit ñëpp ñu doon sankat appui partout dans le monde diaspora bi du ma leen tàyyi di ko wax toujours waa France waa États-Unis Gambie fépp bàyyi wuñ fenn fu Sénégal nekk di suivre 4appuis la bu baax ziar la ñaanal la jàmm di sant Yàlla bu baax a baax di leen jox rendez beneen yoon incha allah beneen invité toujours ci waxtaanu lamb jërëjëf